bokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen andax ñun si rajo Rewmi FM dimanche bu jot ñi lañ koy defee ci émission gox bi te nag ñu am ci yéene rek dalal si ki nga xam ni moom moo di Mor Talla Diop euh, Mame na Diop nekk président des halles des marchés bu ACIS association des commercant et industriels du Sénégal di jégalu rek ci tur bi ñu ngi lay dalal jàmm ci émission gox bi. waa ñu ngi leen di fay yéen tamit. Mhm. Euh, bisimilah di wax na bisimilah rahmaani rahim. Mhm. Euh, di ñaan lépp loo xam ko fi wax rek mu nekk loo xam day am day amal njëriñ askan bi mhm. ginnaaw bi ñu ñëwee seen auditrice ak seen auditeurs yi mhm. ñu ngi kontaan si li nga mhm. alors tey euh, li nga xam ne nag moom moo jëm ci euh, jafe-jafe nga xam ne moom moo jëm ci marché yi waaye laata loolu rek dañuy ñëw ci euh, mbas mi yéen ay commerçant ngeen la nga xam ne moo jëm ci mbas mi ba mu ñëwee nag lompañol na seen activité lu bari bari tey lan nga ñu mën a wax tey ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu wi mel waaw lu jëm ci mbas bi nag moom yàq na suñu activité bu baax a baax a baax a baax parce que boo xoolee période mbas bi daanaka liggéeyuñu surtout que bi préfet génne notam boobu. <laughs> dañuy def commerce essentiel dañuy liggéey trois jours. ñu def commerce non essentiel dañuy liggéey deux jours. ñun ñu ay ñu ay entrepreneur ay charge yaakaar naa en deux jours mu ñëw rek suñuy problème. moo tax bi nga ko waxee tam ñun assis monté nañu au créneau. ne ko kat lii nga bëgg def baaxul. Euh, boobu la njëkk a théorie sax il faut apprendre à vivre avec le virus mhm. parce que dañu jàpp ne économie tam lu am solo si dëkk la mhm. xañ na war nañoo xeex mbas mi mais tam war nañoo fexe ba économie bi taxaw mhm. euh, ñu nekk ci di wax di wax bañ joxaan ñu trois jours ñu dem ba ci kanam président ne léegi na ñëpp liggéey sauf les dimanches dimanche dañuy bale marché mais à notre grande surprise def nañ ko ba bàyyi ko mosuñoo bale marché kon dafa mel ne waxi kilifa gi lañ tey gi jàpp naa ne nag mbas mi dafa am lu mu wone lan la wone mooy tey réew mu nekk war ngaa a fexe noo defaroo noo liggéeyee ba nga xam ne da nga indépendant mhm. parce que bu ñu demee ba nga xam ne tey réew yooyu mel ne fu mel ne Europe mhm. di xëj ay masque di jaar ci benn dëkk ñu koy téye mhm. pour beneen dëkk bi jot ci loolu doy na waar loolu nag damay rendre hommage suñu artisan yi parce que très on a trouvé la solution gisoon nañ Sénégal problème boobu ñun amuñoon problème masque artisan yi ñu ngi doon defar masque loolu day wane ne rek bu ñu gëmee suñu bopp gëm li fi nekk a yi ngeen war waaye ci wàllum koom-koom moom loppañal la leen bu baax a baax waaw ci wàllu koom-koom loppal nañu bu baax a baax man sax mm-hmm. dem naa ba ne préfet mooy commerce non essentiel mm-hmm. parce que man damay def ay transfert d'argent day gis ne nit ñi chaque jour am na ñoo xam se ne góorgóorlu yoo xam ñëw yónnee seen dépense mm-hmm. kon transfert d'argent boobu commerce essentiel la parce que c'est question de Euh, Touba def la même chose génn itam dara jox état jox euh, au niveau de mhm. ko. Mhm. ñu jox ay marchandises. Euh, dégg ay kit ay kit de main. Mhm. jox ñu dem ci maladie. ensuite ñu may sans sans lave-mains de Dakar. pour dañ cee bokk. moo tax ñu te loolu bi ñu koy ñu dara. mais teewul bi ñuy joxe marché yi. foofu état dafa am doxalin boo xam dafa def loo xam ne wax dëgg yàlla. gënaluñu woon. mooy parce que ñu gënaloon mooy tey. marché yi bi ñu koy joxee. waruñoo sax joxe marché dañoo waroon jël xaalis bi def ko ci ay transfert d'argent yónnee ko nit ñi mhm. su ko defee gox bu nekk commerçant ba fa nekk foo yëg boppam ci affaire yi mu am benn tuuti benn valeur ajoutée mhm. jàpp naa loolu moo gën a ñu jox ko quelques Sénégalais rek ñu enrichir au détriment des autres mhm. mais malheureusement état noonu la doxale et ko mais tam lu doon gën mbas bu amee ñëpp ànd di muñ mhm. kon nag bu dara génn dañ ko war a séddale sa wàll mhm. waaw léegi bi nan la war a demee comme tey ñu ngi wax ni économie koom bi war a a ubbeeku léegi mhm. ginnaaw ci mbas seen xool yan yoon lañ mën a jaar ngir daal di yëkkatiwaat économie yéen ay acteur ngeen tey ban yoon ngeen jàpp ni moom lañ war a jël ngir suqali ah, éco koom li ma jàpp mooy que ne ñu gën a jàppale d'abord le secteur informel dafa lañ ay ligne de crédit yi ñu wàññi ko loolu ci am solo. ba pare tamit euh, gën a wuti ay partenaires gën a liggéeyaat. yaakaar naa secteur informel moom ay jàmbaar ñoo ci ne. parce que dañuy faral di ko wax koo xam ne muy jógee dëkk ba xañ na benn ginaar la benn mbuusu ëmbam ñëw jaay ginaar gi. liggéey ba am ay centaine de koo xam ne nii wuti xaalis. boo ko tegee ci ay conditions yu leer rek war naa mën a lijjanti xaalis. Euh, kon nag ñu loolu lañ xaar ci état bi mu fexe ba nga xam ne wax dëgg yàlla micro microcrédit yi mhm. parce que normalement boo xoolee sax xale yi fay jël crédit sax bu ñu jëlee crédit sax duñu ci mën a liggéey ndax taux yi dafay de taux exorbitant mhm. loolu dañ ci gën a war a waxtaanaat mhm. état bu mu leen dégager ay ligne de crédit Euh, gën koo jàppale secteur secteur informel bi mhm. pour que ñu gën a mën a taxawaat da ci am solo parce que tam secteur bi mhm. côté yu bëri xaw naa nërmelu mais teewul tamit malgré que bon ñu ngi góorgóorlu ñu ngi mhm. liggéey waaw baaxul itam yéen association yi ni mel bind ab kayit dëxëñ ko daal koy jox gouvernement bu Sénégal ne ko ñun kat jàpp nañ ni bu ngeen defee lii mën na suqali ko mais est-ce que def ngeen loolu nga ñun en fait euh, état bi xam ne daf ñuy jàppee xam nga ay wax rek ci économie la ñuy tamit dañ koy dund dañ xam même seen woote jam ñaajo sax on n'a pas été impliqué ah bon waaw woowuñu woon mhm. am na association yoo woo nañ leen sax gënu ñoo représentatif gënu ñoo nekk sur le terrain mhm. mais peut-être que dañuy jàpp ne Aziz xañ na day critiquer lu bëri wala des fois Aziz position day day différente position mhm. yenn yenn gis-gis te jàpp naa ne àdduna noonu aussi la par exemple tubaab à part de la contradiction que c'est la lumière il faut que idées yi di wuute gis-gis di wuute pour que mu nekk ay débat contradictoire pour que dëgg gi mën a feeñ mais bu nit taxawee dal nga ñëpp ne ànd nañ ci rek loolu baaxul ci dëkk maanaam débat bu débat buy dem en débat monocent loolu c'est pas bon pour c'est pas bon kon ñun assis wax dëgg yàlla ñu ngi ci ay réflexion yu profonde xañ na bu paree dañ tënk dara yónnee ko daal mais daal am na des fois am na waxtaan yoo du ñu ci associé loolu daf ñuy metti ne bu dëgg neexee yàlla parce que ci réew mi lañ bokk ay acteurs économiques lañ lépp loo xam day doxal économie dañu ci war di assurer ñu joxe suñu position joxe suñu point de vue mhm. alors bu ñu demee ba assise kon di di war a bokk rek fu ñuy naseek fu ñuy noccee ñu leen ciy woo kon jàpp ngeen dafa am ay rencontre yi nga xam dañ leen xaw a beddi ci wàllu wi lu mel xam wax naa la ko léegi euh, président bi mu wootee fa la si jam ñaajo mhm. ñun on n'a pas été associé am na sax suñu membre ñu xaw a mere mhm. ma leen ñun ñun nous une organisation am nañ lépp ministère du commerce xam-xam na suñu existence rencontre nañu am entreprise mhm. donc suñu ministère tutelle war a proposé ne ah ñii kat war ngeen leen woo ci waxtaan bu ñu woowee organisation ñu tam war nañ ñoo woo am na organisation tey ña nga fa mhm. ñu ñoo leen représentatif sur le terrain mais malheureusement dans ce pays là xam nga des bu ñu def yenn affaires yi mhm. day ay sélection te loolu baaxul ci dëkk xañ na dëkk ki nga wutal gis-gis ak wala ki nga xam ne yéen bokk leen fa ngeen gis yéen ñëpp lu ngeen bëgg rek mooy defar réew mi ñun tey ay acteur économique lañ bëgg mooy réew mi am stabilité stabilité mhm. ñu mën a liggéey mën a am dara mën a yokk yokk suñ koom-koom réew ñu loolu lañ gëm mhm. waaw yaa ngi koy wax sànq seen critique yu bari ci gunguur gi fas euh, actualité bu am rek ñu daal di koy dégg rek assis joxe position am est-ce que du loolu taxul nag état di jël ci côté yooyu xam nga nag ñun nous sommes une

doo nekk ministre conseiller ci seen am dara loo xam ne da koy nekk mm-hmm. li ngay nekk mooy président ACIS ñaari mandat ngay def mm-hmm. bu jeexee nga abal keneen ñëw parce que dañu gis ne généralement bu ñu yàggee ci organisation yi yàgg faa toog rek mm-hmm. xañ na da nga dem ba ni nga waroon défendre euh, commerçant yi dootoo ko mën a defati te tamit da nga war a def li ngay def dem keneen ñëw def li muy def parce que àdduna noonu la aussi sa bàyyi sax bu nekkee ci kër wane ba màggat kon nag il est temps tam aussi ñu xam loolu ñu xam ne kat àdduna li koy doxal mooy ku nekk da am sa temps ku nekk tam da war a marqué sa ñun gis-gis wax lañ critique pour compte non non non autonomie la suñu ligne de la bu ñu gisee loo xam d'accorduñ ci ko jàppale ci mbas mi on xam nañ ñun nous sommes association à but d'utilité publique dañoo génne suñu xaalis yóbbu jox état bi jàppale ko ba par exemple dugg

parce que mbas bi mhm. bu fi yàggoon ñëpp lay lompoñal kenn ñaanu ko yàlla nag mais bu fi yàggoon moom mhm. réew mhm. mi ngi dem nañ ñaan yàlla mais mi ngi dem mais des na itam ba léegi nag chaque jour naam mu mu bari mu néew ñu ngi wax lim bi mi ngi xaw a wàcc tuuti mais itam mbas mi mi ngi fi waaw mais xam nga tam ñun Afrique foofu damay santaat yàlla ñun Afrique am na lu yàlla may quoi tey jii bu doon ni mel ni Europe la mel Afrique dana xaw a waar permettre nañu wax dëgg yàlla lu ñëw dañ danañ gën a défendre bu dëgg défendre ko mhm. mais tey bu doon Europe nii la mel Europe wala mu njëkk Europe wala mu njëkk Afrique mhm. kon dañuy dañuy tëj Afrique mhm. mais nag mbas mi rek yàlla ah, war na ne africains yi bu ñu gëmee seen bopp encore une fois parce que Afrique moo des Afrique moo des ci àdduna bi boo demee dans pays européens lépp looy xalaat lépp conception boo am nit ñi teg nañ ko ba pare seen lépp bi nga xam ne wax dëgg yàlla. Hmm. fii ak un siècle a développé àdduna bi. justement ba tey dañuy wax rek ci mbas mi parce que fi mu ngir jeexalee parenthèse boobu mais ñu bari nag léegi ñu ngi sol masque soluñu masque ci biir marché yeeg yeneen ñi ñu ngi dox sans masque demel ni jàngoro bi lu fi jeex la. Hmm. naam mi ngi wàññeeku mais taxul mu jeex yéen itam est-ce que xawoo leen bàyyi seen loxo tuuti itam ci sensibilisation bi ngeen doon mëne ci ñi nga xam ne ñoo doon ñëw di jënd bu ñu waxante dëgg relâchement bi moom Sénégal gépp la hmm. du commerçant yi rek de wax tey dañuy waxtaan rek hmm. relâchement moom Sénégal gépp la ñëpp ñu xaw a relâché hmm. bi ñëwee am lu ma deux mille personnes euh, am na benn temps oto yi sax bu ñu taxawalee gars yi ñëw wàcc leen mais dafa mel ne léegi loolu lépp bàyyi nañ ko

war a set loolu dafa bokk ci àdduna mhm. set moom waruñu xaar sama mbas mi ñëw ñu koy kii masque bi tam des fois da gis ne atmosphère am nu muy mel li gën ma sax nga sol masque mhm. que nga nga ne mhm. a bàyyi xel ba masque naa la bu ñu yëkkoon ne woon tur ñu nërmeelu uh-huh. waaw ñu nga bëgg a liggéey deux fois uh-huh. war a fay sa personne te ñun tam xamuñu licenciement parce que ñu defaa ñuy liggéeyal uh-huh. suñu frère lañ suñu cousin lañ wala tam da dem ba am am relation yoo xam ne tey yow nekkul sax employé ak employeur kon nag waaw ah, la uh-huh. kooku lu metti metti yow da ko fay waaw kon nag euh, na ñaan yàlla daal encore une fois mhm. yàlla jëla ko fi mhm. ñëpp ñu ànd ci xeex bi tam ñu gën a farluwaat gën a takkaat ndig li mhm. gën a protéger waat pour que véritablement mbas mi dem mais tey relâchement bi déggal euh, euh, ni nga xam ne moom moo jëm ci tey mbas mi naam xam nañ ñu mu ngi wàññeeku tey ubbeekuwaat koom bi ndax tey euh, mën nañ ñu wax ça va léegi bon en fait koom bi xam nga ubbeeku ubbeekuwaat na mais ba léegi des na xam nga tam boo xoolee importateurs yi bëri mënatuñoo génn hmm. parce que Chine ba léegi ubbeegul ay buntam. te ñun foofu la ñëpp fu ñu dem. Mhm. mais maa ngi jot ay écho ne ñoom peut xam ne xam mhm. ne mhm. des fois sinon indi moo gën. ñaareel ba tam am na lu impacté ci port bi parce que boo xoolee suuf yi nekk ci port bi mu ko boobu dinañ ci ñëw ndax ponk la boo xam ne bu bu bu bu yaatu la kon 88 la mbokk yi 628 84 84 wala 88 628 86 86 ba tey rek ñu ngi ci émission gox bi ba tax na ACIS muy association des commerçants et industriels du Sénégal loo ko tax a jóg organisation bi ni mel xam nga ñun ACIS dañoo toog lu yàgg gis ne commerce bi ñu ngi agressé amuñu ku ñu yuuxul amuñu ku ñu jooyal ñu ko créé benn bande de copains la ñoo nekk si benn stade na ah ñun de war nañoo créé wax dëgg yàlla loo xam ne ne tey day taxawal commerçant yi défendre intérêt commerçant yi ñu ko créé en mars deux mille dix euh, bi ñu defee loolu ñu commencé di ko dawal ndànk-ndànk li gën a ndax ASIS ah, ah, na jëm ci kaw mooy keroog bi ñu amee problème ak les valeurs valeurs correctionnelles yi ba ASIS Diop wane boppam am taxawaay bu mu am ñëw marché ti leen seet si man marché leen laa nekk bi ñu ñëwee comme ñun on a une organisation boobu boo xam ne nii assez bien structurée. Mhm. waa marché bi kat yow bëgg nañ yow nga nekk suñ bunt ci assis. Mhm. ñun tam automatiquement ñu adhéré parce que xam nañu lii la. ñu def la même chose xam nga. Mhm. décrété grève cent douze heures. yàlla may ñu ci ndam. Euh, ñu am ak naa ci direction douane. waaw ñu mujj dem ba am solution par rapport à ces problèmes ubbeeku lañ. dañu def réeroo réeroo amul ñàkk toog waxtaan moo am. Hmm. mais bu ñu toogee waxtaan arrondir nañ les léegi ñu kon ne ñu ne ah Aziz ah, nag ci la nit ñi commencé di ñëw parce nit ñi aussi kenn moomu leen. parce aussi bu ñu gisee ne yow mi kat la tax a jóg mooy défendre seen intérêt. Hmm. dañuy ñëw adhéré wu. nit ñëw di adhéré wu. Aziz tam nga dégg ko ci yu bëri mooy comme bi préfet ne deux liggéey Aziz taxaw ci. Hmm. problème marché Gueule

mais nag Aziz xañ na Aziz xañ na décla déclare na yaakaar hmm. te yaakaar googu nag yàlla bu mu tas hmm. parce que tamit organisation moom fu da ngeen doon organiser wu défendre seen intérêt hmm. loolu moo am solo waaw tey euh, mën nañ ne euh, Aziz est euh, dans les quatorze régions du Sénégal en fait xam nga xañ na am na offici officieusement dans les quatorze régions du Sénégal parce que du ñu wax loo xam ne tam nekkul mais am na régions yoo xam dem nañ fa def ba imprégné leen wax leen as li ko tax a jóg bàyyi fa ay carte pour ñu jaay monter seen i cellule mhm. ci mois de fin octobre bi fin fin fin août bi mhm. jàpp septembre bi def nañ tournée nationale mhm. mais permettre nañu ñu xam lu yi yëpp dañoo màggat muy marché yi dëgg rek li fi tubaab bàyyoon rek daanaka nekk moo fi nekk ñaareel ba permettre nañu ne tey Sénégal ñun am nañu recherche boo xam ne nii bu ko exploité war nañoo mën a nekk ci kaw parce que dañoo dem Kédougou mhm. gis fa ay femmes transformatrices yuy liggéey si foño bi ñu nekk ay femmes yu jàmbaare nga mhm. xam ne ñoom leen soxla rek mooy ñu labelliser ko xool ni ñu ko defaraate ba nga xam ne ñoom nañ ci mën a gis seen bopp tey jii kon couscous marocain bi ñu importé mën nañ mën nañ ko bañ a importé lekk foño bi mhm. te foño bi moo gën a riche mais malheureusement tey amul benn vulgarisation amul benn accompagnement yooyu Euh, dimanche passé mu nekkoon journée journée du foño mhm. mais dañ cee war a gën a liggéey ba nga xam ne tey mhm. euh, ñun li ñuy li ñuy bay réew mhm. ñu jël ko di ko jaay defar ko ba mu rafet. di ko jaay ci marché nit ñi di ko jënd di ko consommer ba pare moo gën a moo moo processus nutritif. Mhm. ba pare moo gën ci foofu daguma la sax parce que waa ministère commerce nee nañ euh, weeru décembre bi ñëw moom la ñuy def consommer local maanaam li ngay bay sa biir dëkk di ko jox askan wi ñu koy mën a euh, lekk euh, est-ce que tey jotul kan initiative yooyu ñu waroon ko jël bu yàgg. man je pense que xam nga affaire du ay slogan rek wala ay semaine yooyu déedéet il faut une politique. mooy li boo xam ne nii dañ koy jël defar ko labelliser ko. Euh, certifié ko mun ko génne jaay parce que bëri loo xam ñu koy importé tey lu mel ne buy bi bu ñu toogee ci Sénégal Sénégal dootuñu ko dootuñu ko fi gisati. Hmm. parce que dafa riche en vitamine C riche en calcium ñu koy jël di ko importé. Hmm. tey buy bi ñaata façon jus la mën a defar bisaab bi même chose. cere ji am na loo xam lu bëri laal loo xam wax dëgg yàlla ñun war nañ ko mën a taxaw hmm. xoolaat suñu bopp développer ay industrie embryonnaire mooy mooy yoo xam ne nii a jël di ko Euh, di ko mettre dans des conditions normales di ko jaay te boobaa xale yi nañ am liggéey hmm. te industrie yooyu monté ko laajul lu bëri hmm. surtout xale yi ngi nekk ci agroalimentaire bi chômé hmm. kon nag foofu la war a gën a taxaw mais du question ay benn semaine la koy def rek pareil y encore un suivi mais acteurs yi ci nekk il faut les accompagner loolu laa gëm te loolu yaakaar naa tam état ci noonu la war a def ñun assistance loolu mooy suñu politique ñun ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci commerçant yi bon touche d' abord mooy assise dafa ñëw gëmloo commerçant yi gëm seen bopp commerçant yi gëm seen bopp waaw parce que assisté yi bon boo xoolee xañ na mooy organisation bi mujjee juddu. Mhm. xañ na sax bi ñu njëkkee dem grève am na association yoo xam dañu doon jéem galgal te man mënu woon woon gëm loolu hmm. parce que xanaa ko sama benn waaye mën na ko yéen ñu ne yéen on a pas de problème ñun ñu amal problème mooy l'état du Sénégal te li ñu xeex nii c'est leen ci mais bu la ñu jéem a galgal ñu naan non ñi amuñu récépissé xam nga loolu waxi picc la parce que Sénégal tey boo amee déclaration de récépissé rek mhm. war nga mën ñëpp da mën a seen activité comme comme parti politique yeeg mhm. ñëpp dañu commencé def seen activité mhm. mais dama leen xool ma leen ñun il faut rejoindre à nous ñu ànd li nga xam ne jaarul yoon ñu ànd xeex ko mu jóge fi mais tey laba ne tey laba ne daa raison démb ñu ñëpp ànd nañ xeex port bi ah. mais loolu bu ko defoon ba kon dañu am fi mais di galgalaateeg war ne man donc maa fi a ne da ngay keneen ñëw dem avant yeneen yenn kii ay ges ñoo fi nekkoon ges mhm. bi ñu war a boobu fu sal ñeneen te ñooñu tamit jógee ñeneen ñëwaat adduna noonu lay doxee mhm. mais adduna amul rek man rek maa war a toog man rek maa war a def déedéet adduna mhm. du noonu li rek tey jii boo amee sa doom mu dem ba ma sol sa dàll ñun suñu société ni muy doxee da toog sa doom di la jox dépense kon nag ñun suñ pa yooyu suñ leen ñaan encore une fois ah bu ñu mënta ànd ñu ñu mënta ànd ñu nag ñoom di dóorandoo di xàccandoo tamit mhm. ñu toog déglu mhm. leen ko te mais nag ñu ngi gis ni instance yu bari nag léegi Aziz mu ngi siy jël euh, position wala mu ngi bokk ci waxtaan yi ndax seen proposition yi jàpp ngeen ni mu ngi yegg fa mu war a yegg mu ngi yegg xam nga dañu àddina moom bañ bañ ndongu nit soo ko bañee tamit nga gis ne kii mi ngi liggéey mu ngi massifier son ma mi ngi taxawal fépp ay cellule am mhm. da nga nangu caaro yi problème grève fa amoon. Mhm. ACIS moo nekkoon au cœur. Mhm. parce que ñoo fa njëkk a dem def fa benn tournée xool état marché bi ni mel wala presse def fa benn communiqué de presse dem bind leet jox ko maire recevoir ñu mais ba gars yi jógee ñaxtu. Mhm. bañ a fay juuti pendant ay benn daanaka weer. wane wane leen recevoir leen mi nga am ay début solution. asulem daanaka ACIS ma nga fay màgg bu baax. nga dem Touba ñun ñoo ko téye. kon Sandaga daanaka ak 15 pour cent ñun ñoo ko téye. Mhm. kon nag mënoo ne ñii du ma wax ak ñoom. Mhm. waaw parce que ñeenti marché boo ko génnee ci commerce Sénégal daanaka. Mhm. gi waxutoo commerce. waaw. mais tey fu fu wootee jollee rek dañu da Aziz moom est présent. ñu ngi ñuy ñu ngi waaw mais nag xañ na des fois day am day am des fois. réeroo day am duñu fa bëgg a na. peut être position la wala nangam ak na mais des fois ñun moom dañuy toog di waxtaan. ñu ko def ay contribution mu ñuy déglu. en son temps tam ministre du cadre de vie mhm. Abdou Karim Fofana woon nañu tam ñu discuté moom ci affaire marché yi jox mhm. ko dafa ko ay proposition kat dafa dina wax dëgg yàlla man bi mos a déglu ay commerçant ba léegi mhm. maa ngi dégg déglu proposition yi mel nii parce ñun du ñu loo xam ne xam nga euh, suñu li ko kii ñu ngi syndicat il faut ñu def ay proposition du ñaxtu rek daal parce que bu ñu ñaxtu rek mhm. amul sens dañuy proposer teg loo xam tey ji dañuy fexe dañuy fexe économie di dox économie di jaar yoon ñu loolu lañ gëm ñun waaw mhm. alors mbokk yi yéen a ngi ci rajo Rewmi FM ci émission gox bi 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 yéen a fi woote woon fan yéer ñu génn rek ab grève 72 heures. Mhm. grève bi balaa ñu see ñëw lan moo wun doon grève bi ba pare balaa ngeen lever mot bi. xam nga li mu doon grève bi mooy que ne dañoo gisoon ne port bi. fàtte ni yéen ak ay association yu bari ñoo ko bokk seen mhm. association la woon. Mhm. ne port bi wax dëgg yàlla on avait danoon mu difficulté. difficulté yëpp tamit ci kaw la doon këpp lu ci parce que tey ak mbas mi daanaka Dubai Port World ak yenn CMA MSN. Mhm. seen courrier yi nekkatul courrier yoo xam dañu koy kénte par par mail par kii lañ koy message dañu koy joxe. Mhm. te des fois da ngay dem fa la ñu ne bi yónnee nañ ko nga dem ci kër mën a ñëwagul. te loolu buñ bagage suñ bagage bu defee dix jours ci port bi rek léegi dañuy commencé dañuy fay ak loo magasinage te des fois bi ñun du si mhm. ñun. leen nag li dafa war a dakk dem daal nga xam ne port bi dafa ma fa ma doon ne. ab pays ab moo fa nekk. ak leen neex def. xam nga dañu facturer facturation yoo xam kenn xamul fu mu toll. demoon na sax ba port bi régressé ba nekk cinquième position wala voire sixième position. Mhm. te port yoo xam tey ñoo leen rawoon ñu ngi woon deuxième position. xam nga loolu tey baaxul ci économie. Mhm. parce que port mooy économie. tey war nañ mën a jënd suñu bagage ñëw génne ko jaay ko am ci dara. danaan dem bato sax bu ñëwee sax mel xarit kër bi dem Amérique nee ma a wàcce bagage yi jóge Amérique du am place day te tey am na client malien am na client malien yoo xam ñu ne ko Ivoirien ñoo ko bokk léegi mel nañu moom dañu ko diwaar jëndi kooku perte na pour le Sénégal il faut que tam ñu xam ne euh, jamonoy nooteel jeex na du waaye porul xam ne société la boo xam dafa war a ñëw dafa war a liggéey mais tam dafa war a bàyyi xel ci ñi muy liggéey li yoo xam kenn xamul fu mu ko teg ngay fay xaalis boo xam kenn xamul fu mu am nekk fa di rang comme ay maanaam amul rang bu méttee méttee métti ah bon chauffeur yi nekk ci oto toog fa ay vingt-quatre heures booy fay dara ñu ne la benn banque rek nga koy yóbbu fii Dakar moom foofu rek nga war a dem fay loolu yëpp nag mu ne problème yu xaw a doy waar te ñu war ko diversifier te ñu war mu ne problème yu xaw a doy waar nag hmm. bi ne ba xam ne nag mënatul hmm. a ah, hmm. nag il faut ñu xeex ko parce que da ngeen njëkk a waaw ci semaine bi ñu remaniement am ngeen dellu si ginnaaw ñoo xam bi ñu njëkk a alerté boobu ministre Omar yi moo woon gars yi waxtaan ak conseil interministériel. Mhm. le président va faire une déclaration. Mhm. keroog président def na ci benn. note benn note. Mhm. mais xam nga liy problème port bi dëgg. autorité la amul. Ah waaw boo bëggee dëgg dëgg. autorité porteur bi moo jéewul rôle parce que moo war di réguler. directeur bi daal. waaw moo war di réguler. xam nga da am loo xam da ngay bu kii jaaroo nga ne ko jaaroo yoon. ministre du am loo xam tam da ko war parce que port bi bëri na loo xam ñu tey benn imprimé da koy fay yow mën naa la jaay defal la facture na la fayal facture bi. loolu mën a ko bindal koy fay. am loo xam ñu ngi ko tuddee euh, maanaam téléphone maanaam kii euh, communication. Mhm. maanaam téléphone bi ñu lay woo. te sax wootuñu téléphone yow sa ne dañ la koy lañ ko teg. ñu ne parce que ñoom monsieur Ndaye ñoom ñu ne wooy dafa benn cours sur le ay entreprise lañ xam nga ils ont des métiers war a fay ay nit mais bañ ba fay ay nit tam war nañu koo jël si ñun de manière anormale tey. Hmm. li ñu war a def mooy lépp loo xam normal na ñu def ko lu normal ñu dindi ko. Hmm. loolu la leen wax li ñu dindi ko ba pare tam magasinage bi ñu yóbbu ko vingt war a def Mbour euh, hmm. ci la gën a liggéeyaat tënk mooy nga xam port bi mi ngi koy am entre les acteurs ak waa euh, direction port. ak les ministres concernés ñu waxtaan ci pour trouver des solutions par rapport à ce problème là parce que port bi ni mu doon defee bu continuer moo tax ngeen génn ci euh, pat pataaral gi ngeen nekkoon naam mu ngi leen doon gaañ mais il fallait que ngeen alerter alerter ngeen déglu ngeen euh, léegi yéen ngi dem ci ay début de solution mm. proposer def ngeen ay proposition ah proposition yi est-ce que yéen itam jàpp ngeen ni lu yenul maanaa la loo xam ne boo ko tegee ne war ñu mu ko mën a dindi proposition a nekk la mm-hmm. parce que yow tey boo xoolee communiqué dañ ne la communication man defuñu la communication déclaration ñu fayu la ko mais yow travail boo def waroo ko fayu imprimer maanaam boo defee leen facture feuille bi nga koy imprimer da nga koy fay loolu yanul maanaam te Côte bu nekkee à vingt et jours est ñu war nañu nekk à dix jours te dix jours les week-ends sont inclus tey bu ñu ñëwee indi conteneur bi mu def dix jours ñu commencé na dóor magasinage te ñu koy fay ay amende mais loolu day répercuté si consommateur final bi parce que moo tax xeex bi sax dafa war a nekk sax xeex consommateur yi. Mhm. du xeex commerçant yi rek. est-ce que impliqué leen ngeen leen ci ah, ñoom. association consumériste yi. xam nga fii lam bu ñu waxantee dëgg la association consumériste doo leen dégg bu baax yàlla dëgg rek la bëgg. Mhm. man nag sànniwuma xeer kenn quoi. Mhm. mais doo leen dégg bu baax. mais est-ce que est-ce que kii ngi wax ngeen leen problème bi am ci port bi wala ñoom xam nañ ko. non en fait wax nañ ko xam tey ma jox la benn cas rek bëgguma citer benn société de transfert. am na société de transfert boo xam tey jii boo ñëwee bu ñu la ci defalee transfert. da nga am problème pour fayu parce que tam agent ñi ñuy liggéeyal duñ nangoo fay parce que bu ñu ñoom duñ leen fay mais tey consommateur yi ngi sonn tamit nga am sa malade ñu yónnee la 500000 nga ñëw bëgg a waaj na la doo fayu mënu ma laa fay parce que ma la fayee kële ci kenn wax te loolu dañ cee war a wax parce que nit boo jëlee sa jox jox ko dugal ko benn société de transfert dañ laa war a fay loolu moo normal hmm. parce que mayuñ la ko lëbaluñ la ko hmm. léegi yow da wër a wër da ngay kuy wër Dakar une semaine quinze jours kenn du ko fay parce que comme dem naa ko ah man du la fay parce que su la fayee société kii bi transfert du ma parce que ñun ni ñuy liggéey société transfert mooy boo fayee tey mhm. def benn IV wala benn IBANC suba ñu delloo sa xaalis mhm. mais bu leer na yow boo fayee tey mhm. dana def un mois deux mois wala quinze jours doo jox sa xaalis te loolu déggoo benn société benn te pourtant situation bi ñëpp ngi koy dund au Sénégal. Mm-hmm. mais dañ ko war dañ ko war a wax ne ko doy na alerte wala quel est le problème mm-hmm. ko a bàyyi xel. Mm-hmm. a empirer wu na doy na waar trop. mais seen waxtaan bi ak yéen ak autorités yi. amoon na diir de yàggoon na de ci ci biir saal waxtaan ndax jàppoon ngeen ni d'accord leen ci lii d'accord leen ci lii parce que ci écho yi am waxtaan bi yàggoon na ah, lool presque euh, plusieurs heures ah waxtaan bi ñu ngi commencé trois heures trois heures cinquante quinze heures mhm. mu ngi jox ay deux heures du matin parce que mhm. port bi daa bëri problème mhm. dafa dem ba transitaires yi sonn transporteurs yi sonn commerçants yi sonn ñoom ñëpp ñu xam ne bu ñu taxawul xeex wala bu ñu taxawul ñaxtu dañuy dañuy te am na loo xam tam aussi li ma wax rek mooy que ne Dubaï Port moo ko tegoon ñu bëri ak surtout société monétaire lu mën a ñàkk la. Hmm. parce da ko doon def rek pour renfler ses pour gën a am xaalis. gën a lor yéen waaw gën a lor a lor askan wi gën a lor euh, liggéeykat Sénégal. Hmm. loolu nag état moo waroon ñëw na réguler parce que tam booy jël dara yaa ngi cahier de charge boo ko rempliré li nga wax si katam boo ko rempli état moo ñëw la eh, li nga wax katam hmm. bi ressaisir na waxtaan bi commencé na. Mhm. ñu ngi koy continuer te jàpp nañ ay solution daal waaw. Mhm. mais au delà de ça ci proposition yi ngeen joxe tey euh, pour gën a mën a doxal poor bi seen commerce gën a mën a dox. Mhm. tey yan dogal wala yan. ponk ngeen war a fas yéene waxtaanee nga li ni mel gën a mën a dem balaa ngeen jël seen kii yi balaa tu nga may ñu si tuuti rek balaa ngeen a dem mbuur li ngeen mën a jël tey kii ngir ñu ko ko sarde au niveau de mhm. ñoo ciy dox xëy na sax ñu ngi imprégné wu mais duggaguñ ci bu baax a baax ba léegi tam ci mhm. réunion mhm. bu baax a baax parce que dafa pare nga gis lakk Touba bi ñu nekkaat tam di gëstu xool nu ñu demee Touba xam loolu mooy a maanaam suñu sama gis-gis mhm. mooy dafa am yoo xam ne dañoo war a dekkalaat lu mel ne ay port Kaolack beeg mhm. Saint-Louis yooyu yëpp ñu fa dekkalaat ñu fay wàcc mhm. a bi tam dafa daanaka tam la fa nekk boo gisee ñu créé port kii bi sax ndaayaan bi sax ndaayaan problème boobu la parce que dalaloon naa fi ñu nekk Foundiougne ñoom tamit ñu ngi jooy li ni mel waaw kon tey sama gis-gis bu gàtt daal mooy port Kaolack war nañ ko gasaat fu mel ne Saint-Louis war nañ ko ubbi port ndaayaan waaw ñu mhm. kii ko parce mhm. que port Kaolack soo ko déclaré euh, ñuy jógee Malek yëpp mën nañ mën nga leen fa yóbbu mhm. Saint-Louis tam na côté boobu mën a servir kon nag nañ gën a liggéey ci côté boobu rek xam ne daal waaw monopole moom dafa war a jeex Sénégal alors ñu am ñu ñëw ci benn ponk bi nga xam ni presque moom la ñuy waxtaane saa su ne lakk-lakk yi ci biir marché yi Euh, lan moo waral loolu chaque jour dañuy jokkar bi baaraamu tuuma yéen ñi nga xam ni yéenay commerçant yi mhm. ñu ne blanche euh, branchement clandestine yéen a ko fay indi ci marché bi lu undul li ni mel. waaw xam nga loolu tamit du ne amul parce que buñ ne amul loo xam ne nekkul. Mhm. am na commerçant yoo xam ne dañuy def ay branchement mhm. de ça y que tey da nga gis yi amul benn sécurité. te jàpp naa ne marché yi tey ñoo doon assurer sécurité bi mooy les municipalités parce que marché yi bu yàgg na daan am mhm. boo xam day dugg ci marché bi di xool ndax li jaar na yoon li jaaru yoon fi nga teg taawal ji baax na fi nga mhm. teg ki nangam mun lu baaxamul la dindil mais tey li ñu gis ne rek mooy maire yi di ko def mooy marché yi daanaka ñoom nañu fa jële xaalis rek nañ ñëw fayeko seeni mhm. taxe municipale nañ ñëw fayeko seeni patente seen taxe publicitaire jël dem seen yoon mais en dara marché yi xam nga tey. te ñoom te ñoom nag nee nañ parce que ñoom seen devoir rek la ñuy def ci marché yi comme euh, li mel ni taxi yi euh, est-ce que kon itam euh, défaut bi fan la. xam nga taxi boo ko jël. Mhm. war nga ko delloo war nga ca delloo nit ñi tuuti tuuti loolu moo jaadu te soo ñu mën a fay taxi. Mhm. am na xam bu yàqoo yow su resort la nga defar ko am na xam bu yàqoo resort commerçant mu defar ko mais généralement maire lu ñu def loolu ñoom dañuy ñëw buub taxi yëpp yóbbu lu am ci marché koy defar te bu ñu koy defar lañ koy defaree. Mhm. xalaat naa ne xalaat boo xam mais tey dafa urgent euh, ñu woote benn ndaje boo xam ne dañuy waxtaan ci marché yi ndëpp. Mhm. benn ndëpp. Mhm. xool lan moo dox ci marché yi mi ngi bëgg génn jéggi dayoo na. waaw lan moo dox parce que keroog ñun leen mhm. lii bëggatuñ mu am. parce que ma nga wax keroog mën na leen bëkk démb Louga la démb Kaolack tey Touba la. suba feneen lay doonaat ñu deful ndànk te tamit suñu alal mooy yàqu ñun commerçant yi ñun. bu suñu alal yàqoo ay milliards ñu ñoo jox ñu benn cinquante millions lan la mën a régler ñu ne xañ na am ñoo xam mën a jël sa mais tam ñun ñu bëgg mooy ñu toog autour d'une table xool naka la ñuy defaraate marché naka la ñu koy moderniser te jàpp naa loolu mën a nekk la. Mhm. parce que commerçant aussi am nañ seen gis-gis ñun aussi am nañ suñu position. Mhm. seen position lan la suñu position mooy acteurs nañu koo defar. yéen waaw acteurs yi. Mhm. am na ko defar. yi ñu defar marché yi yi répondre à nekk Dakar yëpp yi nga xam ne daanaka commerçant yi moom la defar rek moom ñoom ñu ci gën a fréquenté. Hmm. yeneen ils sont ils sont pas tellement fréquentés. Hmm. parce que dañ koy defar dem ça ne peut pas parce que commerçant na hmm. xam na place commerce bi muy mel xam nga kooku bu defaree day baax. mais tey bu ñu ñëwee dem jox benn benn benn kii fële mu ñëw indi xaalisam wala mu dem ci banque bi na defar marché bi defar bi yàgg. commerçant yi fa nekkoon yëpp daanu. bu ñu fay dellu si ñeneen dafay dellu si loolu baaxul. dañuy xool kaaw marché Ndoumbé Diop ak kaaw marché Tilène. la ba léegi mënut caaro yi depuis ñu jëlee fa jëlee affaire u terre bi 2017 hmm. ba a pare hmm. marché ñu ngi jox lañu sept hectares marché bi dégg naa benn buntu la am amul lieu de culte xam loolu dafa xaw a doy waar hmm. kon nag il faut daal ñu waxtaan état bi xaw ma moom ak maire yi dañuy parce que ministre commerce ne léegi moom lañu dénk defaraat a dit dañ leen il a un budget de soixante neuf milliards pour de faire les marchés Sénégal yi aajowoo defaraat tapp tappal mu tappal leen yi aajowoo defaraat mu defal mais jàpp naa soixante neuf milliards mënu loolu mënu ko parce que tey boo demoo génnoon ñun keroog bi ñu demee marché Kaffrine man damaa rus ah bon wallaahi dama rus dama ne fii naka la fi ñu andi tooge di jaay après ñu ne sax am na canal boo xam ne benn commerçant mu la fi tànkam damm nga xool marché boobu nu mu mel aussitôt rek dañoo dem seet le maire de Kaffrine moom tam vraiment mu accueillir ñu waxtaan ak ñun wilaan c'était pas prévu sax mhm. mais dañ ko gis ni marché bi mel ñu jël suñu téléphone woo ko ne ko ah sëñ bi sa marché bi ni mel metti na de dañ laa bëgg a gis nga ñëw leen wax dëgg yàlla loolu tam nañ ko ci sant di ko tam noonu la war a mel mhm. bu ñu soxlaa da war a ubbeeku ñu dem toog waxtaan ak moom waxtaan ak moom ci affaire marché bi xool te jàpp naa ne région aussi li problème bi Dakar am amuñu ko région yi tey fu ñu recaser nit ñi si de recasement dafay yomb bokkut ak hmm. ñu gaaw defar marché yi ni ñu commencé dem dugaat mais marché yi mënuñu ko bàyyi ni mu mel war nañ xool naka la ñuy defaraate marché yi <laughs> naka lañ koy moderniser <laughs> ba nga xam te dañ mën a concurrencer yenn multinationales yi fi ñëw <laughs> di fi def ay grandes surfaces waaw ok euh, wax nga léegi defaraat marché ministre de l' bu yees bi ba mu demee fële di euh, massaw ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi ca diwaanu Euh, Touba. Mhm. nee na jox na fa koppar gu toll ci juróom fukki million jox ko ñi nga xam ne ñoo xalif bi pour mu jéem ko jox ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi tey moom wax na modernisation ministère boobu wax na itam modernisation marché yi est-ce que wa jiwal amul si seen kàddu yi ñoom. xam nga ñoom en bi xam nga état bi man ki bi mu l'ancien ministre de l'urbanisme et de l'habitat dana moom la ñu dénkoon modernisation des moom la ko dénk mhm. boo xoolee problème bi mel sax moo am contradictoire mhm. problème bi mel noonu boo gisee wax Sandaga yi xaacu bu ñu doon xaacu ak position yi ñu doon jël yëpp problème boobu la parce que au départ ñoom ministère du commerce ñu doon liggéeyal liggéey ba sori mhm. Aline Ndoye ñoo nañ da ci bokk ministre ministre kii jamono moom tam moom la ko dénk léegi nga xool ne day am contradiction dama jàpp ne état dañu war a am dañu war a la cohésion gouvernementale am tam esprit d'équipe xam nga mais waru warul doon xëccoo <laughs> mais en réalité ñu gis ne des ñoom seen biir dañuy xëccoo yenn affaire moo tax muy tardé dañuy xëccoo yenn programme <laughs> moo tax muy am tardement <laughs> parce que ñoom bu ñu liggéey ministre commerce ba tollu fenn fi même bu ñu ko liggéey ministre de l'habitat bu ñëwaatee warul mën mu konte dafa affaire tey ñaata nañ ci nekk ci liggéey xoola kër mi génne commerçant yeeg léegi est ce dem nga fa est gis nga fa def amul soppeeku yóbbu leen centre commercial yoo xam ne ni daanaka duñu gis kenn duñu jaay amul benn mesure d' accompagnement te ministre bi ñu waxoon ne day am ay panneau am ay guide yoo xam ne da la yóbbu yëpp ñu ngi gën a buub seen i bagage dem loolu nañ toog commerçant yi te pourtant leen commerçant yi nekk la waxtaan ak ñoom commerçant yi kon ne seen business ñu xool naka lañ koy def ba kenn du ci gaañu mais dama jàpp dafa am nag ay yeneen enjeu ci nekk yoo xam ne nii waxuñ waxuñu ko waxuñu ko waaw ñun waxuñu ko wala ñun xamuñu ko boog dañ ko ignoré ñu ngeen xamoo lan la ay enjeu financier la waaw xaalis moom bu génnee rek mhm. gars yi ñu ci bëri dañuy taqali seen sago wala xaalis bu war a génn te loolu nag defarul am réew mhm. parce que marché yi valeur bi ñu am plus yi ñoo ko def tey suñ papa suñ ma euh, bi ñuy jóge Bawol mhm. Saalum ñoo sol ñëw di booba kenn bëggul woon a jaay mais suñu papa yi nekk ay góorgóorlu hmm. teg di teg di liggéey am ay magasin ba tey commerce bi koo gis day bëgg a commerce ok tey ñun ñu nga gis ni ñu nekk ci assis amet ñoo xam ne ay diplômé lañ hmm. dañ koo teg pour ñoo dem dugg ci commerce bi loolu suñu papa woon ne yoon bi kat bu ngeen ci kiyee liggéey hmm. mun ngeen am dara mais bu yàgg ba jaaykatam moom kenn bëggul woon a jaay Sénégal man naan ah xool demal ci bool bool waram taabal bee bool bool bee ko mais nag mu ñafe ba àgg fi mu àgg tey Marseille tey ba fa paa di ñëw kenn bëgg ko tey paa ñoo dem ba jox ko yenn valeur yi loolu nag kon waruñu ko waruñu ko nangu seen loxo dañoo war a xool nu ñu waxtaane parce tey boo dem dayo dayo boobu nag acteurs yi ñoo ko jox acteurs yi fa nekk dañoo nasaxul moo tax marché bi toll foofu mu toll tey kon nag acteurs yooyu nag kenn waru suufeel kenn waru jaay doole waaw alors euh, ñu ñëw ci benn bonk bi nga xam ne am na seen relation ak municipal euh, kii mairie yi mhm. des fois ñagas-ñagas da si bëri lool euh, xanaa ñàkk waxtaan la wala ñàkk wegante la lan la lan mooy problème bi. benn des fois mën na nekk ñàkk wegante parce que maire yi des fois dañuy jàpp ñun ay nitu àll. wala dëkkuñ Dakar non nañ ko waxtaanee rek ah <laughs> c'est la mm. ki am magasin am fi këram. munoo mm-hmm. ko fay tere dëkk. maire yu bëri sax dëkk dëkkuñ Dakar comme ñun la rek dañoo ñëw gàddu seen mbuus saa ñëwoon jàng si fi wala doon fi liggéey ba nekk ñu ñu nekk maire mhm. ba pare tamit population environnante des maire ñun utiliser ci kaw commerçant yi te bëri na maison environnante yoo xam ne tey jii yu wër marché yi marché yi ñoo doon yor location bi location mhm. bi njaayum sew bi nga def ci biir mhm. njaayum añ mi njaayum ataaya bi njaayum ndox mi xam nga marché xañ na am na ay dëkk marché am na ay mais am aussi ay avantage ci kaw boo nangoo liggéey tey boo gën taaw sax di jaay ndox sax da am dara boo waroon fukk commerçant leen toggal añ da ngay am dara location bi tey boo da nga naa ko jël salon def ko salon ba ci kanam mu ñëw ko benn commerçant deux cent mille mu koy fay kooku nag mu ñëw lee foofu pare nga ne nag kooku du ma du ma ko may dara loolu mun da nekk xam nga maire yi discours des fois ñoom li ma wax rek commerçant yi ay vache à vache à lañ leen def quoi dañ leen dañ leen di rek mhm. mais amul benn boo xam ne ñu ngi pour les marchés non teguñu lenn lu xam ne lu concret la quoi dama demande lan la mhm. peut-être que maire yi man damay gis ne maire yi peut-être que liggéeykat dafay nekk généralement seen xam-xam seen xam-xam day des seen xarañ day des mhm. mënu ma leen juge nag mais loolu ngay gis même des fois xale yi ñuy yónni sax xale yi dañuy ñëw sax dañu dañuy terroriser mhm. xam nga comme si ñun dañoo def lu garaaw wala ñoo def nangam bu ñu wax ak ñun du ñu jox benn respect te xaw a doy waa daal da nga naan lan la quoi quest

mais li ñu def du ay foire xam na ñu def mooy lan événement jub si ne commerçant bi xam ne toog na lu yàgg liggéeyul mhm. war a liggéey am xool ko tuuti parce que ki jaay tiisi événement mooy ay ci lay teg ay ay business ay plan business am mhm. nga ñëw dem jëli beneen waay fële ñu dagal ko foofu muy jaay tiisi jaay kooku bu événement bi jeexee mu dem kële ne toog loolu jaaduwul man jàpp naa ne ñu def ci marché dañu ko war a arrêté mhm. loolu mooy ko war a arrêté jaaduwul fa fa ñuy jël ay place ay place publique la ba pare bu ñu xëyee suba xale lal fa ñu ne du ngeen fa lal kon ñoom kenn xamul lu ñu bëgg tey dañuy ñëw lal fenn def fa foire tëj yoon yi suba xale ñoo teg fa seen table ñu mhm. pourtant ñoom ñoo ko jaayaan bi événement di kii ñu dafa def mhm. loolu nag dafa xaw am une contradiction il faut tam ñu bàyyi marché yi ñuy jaay bu ñu bëggee def foire mhm. soit ñu gis ñu mel ne foire foire internationale Dakar ñu jëm fa gars yi ku leen fa yi nga xam ne fekk nañ fa mais ay grande surface dafa am ay normes yu mu respecté. Mhm. te fii. fii euh, amu gis nga petit commerce dañoo war di ko protéger parce que multinationales yi ñu mënuñoo xeex ak ñoom. Mhm. ñoom mhm. mais nag il appartient à l'État de et de protéger le petit commerce. informel bi léegi am nañ benn ministère bu ñu leen jagleel yaakaar ngeen di début de solution la. waaw ah, xam nga li ma wax rek mooy début de solution bi du ay. jox nañu <laughs> am solo rek mooy actes yi ñu posé. te généralement fii général actes mooy des quoi wax ji dana bëri trop mais doo gis actes yu ñu posé ñëpp xam fan mooy metti ñëpp xam fan la problème bi nekk ñëpp xam ne secteur informel di mhm. mhm. le moteur de développement du Sénégal boo demee Chine secteur informel moo koy xëcc nga dem Inde la même chose pour lu tax Sénégal tey secteur informel bu nu koo xëcc mais du taxaw jakaar jox la benn ministère rek déedéet mhm. dañu war moo xam ne secteur informel dañu ko organiser accompagner leen ñu loolu mooy suñu loolu mooy suñu kii tey mhm. ba pare tam marché yi tam ñu koy jox les sénégalais mhm. ba pare tam commerce bi tam ñi ci bokkul ñu génn leen ci maanaam daa am ñu si laxasu bëri na mhm. bëri na tey fonctionnaire yëpp dañuy commerce Sénégal presque te c'est interdit par la loi bu yàgg ba sañoo ko woon maanaam daf leen daa am ñu leen rax léegi bëri na mooy li ma la fonctionnaire yu bëri dañuy commerce Sénégal tey ils le font de manière indirecte te bu yàgg ba sañoo ko woon yow tu optes pour être un fonctionnaire fonctionnaire nga war a doon à à vie état bi da lay fay ba ni ngay dee bu tal di la di la mu tal la prise en charge. Hmm. on ñun on n'a pas ça. mais kooku bu waroon a quoi ñëw di compétir ak ñun sur le marché. Hmm. est-ce que mën naa nekk. dañuy fonctionnaire bu jël congé am dem indi conteneur am. congé bi da xaaj trois mois trois trois fois da koy jël trente trente da koy xaaj fois chaque quatre mois mu dem jëndi bagage ñëw bu dikkee leble ko parce que dund ci. man su ko doon def loolu damay daanu. yenn marché yi tam da ngay xool ne. Hmm. doo xam ñu koy gagné sax ñan la wala surtout les mêmes gens qui la gagne te loolu baaxul ci mu réew dañoo war a fexe ku nekk ñu seet la sa wàll boo remplir les conditions qu'il faut ku nekk am dara réew mën a soqali ko mais suñ commerce ñu ngi ci commerce bi kooku mhm. moom ko ko bu baax a baax jotul ñu génne leen ñu seeti leen dañoo amul droit sa def ko parce que amuñu droit am un registre de commerce amuñu droit am ko kon waruñu ko exercer tey Sénégal da nga gis dëkk boo xam da ngay ñëw suba rek ubbi sa boutique di jaay te état bi à travers les registres de commerce ak yenn papiers yi nga xam ne ni ko état mënoon na ca gagné xaalis bu bëri imposé ñëpp ñu am registre commerce loolu day gën a renfler les caisses de l'état ñu koy ñu koy ñu koy saytu di xool ndax ki na cee dugg ci waru cee dugg ño nga war a jaayee organisé waat ko grossiste bi nekk grossiste demi mhm. mais tey dafa mel ne sabar ku tax sa rek fu nekk la waaye jóge di fecc te loolu nag baaxul ci mu réew waaw euh, ñu jeexale rek suñu ñaari ponk tey gis nañ ni grande surface yi suñ duñ leen tudd alors ñu ngi taxawal ay bërëb. Mhm. ndax ACIS am na projet projet yu mel noonu. ñun ACIS on ñu ngi ci discuter parce que gis nañ ne fi ñu toll nii foog ay consortium xam nga grande surface yomb naa defar xañ na Sénégal lañ cee yeewul woon rek mais grande surface yi bu ñu tey jii war nañu wax ak ñoom dañuy dem jëpp dañu dem gis benn commerçant nangam ne kaa ñu jox la benn rayon. luyee la ko nga ñëw exposé ba indi sa vendeur teg di jaay loolu ACIS ACIS mën nañ ko mën nañ dafa benn maal boobu nga ne dafa ay rayon ku nekk ñoo jël kii def kenkaari ñëw rayon kenkaari am keneen nangam keneen nangam loo loolu la grande surface bi du def grande surface du benn nit rek nga xam ñun ñun suñu maloolu Sénégal dañoo tàmm dem en ordre dispersé ak individualisme loolu baaxul te tey nag jàpp naa ne bu ñu boolowul nekk benn xool ni ñu contrecarrer ces grandes surfaces là xool ni ñu contrecarrer ces multinationales là dañu dañu dañu dañu kii ñun ñëpp dañu daanal ñun ñëpp assis nañ ñu ngi kiy waxtaan pour xool naka la ñu ay grand espace yooyu tam am na Sénégal yoo xam ne ñu ngi ci commencé dugg boo xoolee tey gis ay grand espace yoo xam ne yoo xam ñoo ko moom a baax kenn moomu ko kenn waaw dañoo ko mën a développé mhm. parce que dama ko wax gars yi sama benn booy économiste la dañuy waxtaan mu ne ma grand yow da ngay luy nit sa kër ngay togg ceebu kecax kooku togg ceebu ginaar nga naan kër gi neex na yaa ngi nax sa foofu rek mhm. mooy que ne kii bi ñu ñu ngi koy am croissance bi tey ñu ko porté yëpp ay multinational ko bàyyi Sénégal duñ ko ko jël ko seen dëkk mhm. kon nag dafa jàmm ñu am la fibre patriotique la fibre nationaliste man bëkk déew rek benn chinois ñëw na sama place. pour hmm. jox la benn exemple rek damay jaay ay téléphone portable. moom njëkkee ñëw la ñu ko xool marque bi nga xam ne chinois koy defar la jënd ci man. est-ce gis a doxee ñun tey booy nga dem jënd Sénégalais bi Sénégalais bi yokk. Hmm. moo tax bu yokkoo da ko gis mais yow boo demee ci multinationale bi bu jëlee xaalis da koy yóbbu dëkkam hmm. investir ko si dëkkam dëkkam développé yo ngay gën a dellu ginnaaw rek kon nag dafa jaar dafa jot tey nag bi wala léegi économie bi ay nationaux porté ko waaw. tey euh, maanaam liggéey googu la tey xale yu bari tey euh, di daal di jël li nga xam ne moo di gàllu looco yi. Mhm. di dem wutali tugal yaakaar ni koom gi fa la gën a ëppee doole fa lañ ko gën a mën a amee mhm. tey ndaw ñi ñu ci bari ñu ngi ci faatu. Euh, est-ce que jàppoo ni ay bànqaas lañ war a teg ngir suqali ndaw ñi comme ni nga ko waxee ay grande surface yoo xam ne itam dana mën a jëriñ ndaw ñi pour ñu toog fii si seen dëkk daal di suqaliku mais buñ ko gisul est-ce que jàppoo ni duñ dem itam. man jàpp naa ne foofu politique de l'emploi d'abord la gars yi moo am échec la politique de l'emploi ak ndaw itam aussi ni ñu leen formé xam nga suñu njàng yi ñuy jàng da jàng am bac dem université dem fac droit wala nga dem wala nga dem lettres modernes te nga am sa master lan nga mën a def te naa aucune qualification te tamit am na ci ñoo xam ne ruus nañoo Sénégal commerce rek moo fi des daanaka ruus nañoo bu ñu jàngee dem di commerce wala ñu dem di taawa taawa dañ koy ruus man jàpp naa ne il faut que ñu am une politique d' emploi bu baax a baax pour de formation. Mhm. ñu jéem a xool nu ñu formé xale yi. parce que Sénégal tey am na métier moom boo ko wër sa koñ doo ko gis électricien baax boo ko wër sa euh, ñu tuddati. plombier yi plombier mhm. am boo amee qualification bu baax da ngay am liggéey bu baax ñaareel ba fi ndaw yi doon nekk di liggéey yëpp teg fa ay taabal ci mbas mi dañoo profité jëlee leen fa dama dama hmm. da nga gis ñu nekk ay xale mais man la xam naa ko bu baax parce que dama yor benn transfert daanaa da nga gis xale yoo xam ne chaque suba ñëw sama kër sama sama place ma dëkk ba dépense lañ fay joxe ku mel noonu boo ko ñëw yëkkati fi daan nekk dafa hmm. ko benn solution alternative amul dara loo ko jox mu toog un mois mu du yónnee këram dépense yaa naan ko da ngaa yaafut ak suuf ni lay wan mais kooku xañ na encouragé wuñ ko de. Mhm. mais bu nekku ñàkk xel danaa naa dem dugg ci gaal gi lu mu am jël. tey liggéey yi def Europe bu ko defee fii mun nañ ci am xaalis. Mhm. mais est-ce que jël gaal gi itam dem solution la. dama ne naa du solution man mënu ma koo mënu ma koo encouragé. Mhm. mais il faut que tam ñu fixer nit ñi dans leur terroir. dañ koy def mooy fexe nit ñi di bay fañ dëkk. mais tey fekkee ne téye woo xale yi. nga jël benn vague ñu dem dama koy wax gars leen dafa am dafa ma ne rentrée de classes gis nga heure bu ñu jógee tabaski mhm. wala heure bu nawet bi jeexee dañuy gis ay ambulants yu bees dañuy ñëw dugg si sixième yokkuwaat ci li fi nekkoon mhm. loolu nag lu leen mooy nga fexe seen dëkk nekk ñu fa am ñu bu ñu ko amee rek du ñëw si yi mais tey boo xoolee fii à Dakar xale yi mhm. waaw li ñuy jaay mooy boo xool li ñuy jaay du dara nga dem dans les régions daawal Jakarta la ñu def est-ce liggéey la xañ na liggéey la niin mhm. pour ngay gérer sa problème quotidien mais amul benn na loolu am na ndaw yoo xam tey ñu ngi yëngu ci industrie café di jaay café Touba bi mais ñu ngi ciy génn ñeneen def leneen def leneen mais il faut que daal ñu xoolaat mhm. nu ñu fexe ba ndaw yi am liggéey bu dëgër mhm. ñi war a am qualification am qualifi former leen ñu am qualification mën a liggéey ñeneen itam dugg ci commerce bi hmm. ñeneen itam toog si dëkk ba di bay mais ñëpp mënuñoo jaayaloo te tam fekkee ne foolal tam ñu ne la du fii hmm. te ndakaaru la dañ ne rëbb sa cool ndakaaru nga mën a jaay daanaka hmm. boo fi yàggee defoo dara ah da nga naan daal dund benn yoon wala day benn yoon man nag lu ñu encouragé nag mais daal bëgg nañ daal wax dëgg yàlla ay mécanisme waaw ñu teg ay mécanisme yoo xam ne nii ndaw dañ ci gis seen bopp parce que ku nekk ñaan nga yàlla am dara liggéey Thierno émission bi gàtt na mais jeex na kàddu gu mujj gi tey lan la. waaw xanaa di masawu nag waa Touba bu baax commerçant yi nga xam ne ñoo ñoo nekk ca diwaan Touba bu baax ak lakk-lakk gi mm. ak yeneen marché yi nga xam ne ñoo ñoo subir li ni mel bàyyi la jox la kàddu gu mujj gi. Ah, Bemba di la sant rek di la gërëm bu baax. Mm-hmm. di wax tamit euh, xaj na waxtaan bi c'est passionnant. Mm-hmm. dem na sax au delà du commerce wax nañ mm-hmm. euh, loo xam ko rek mu dëng. ñu xam ne si la. lu jub ñu xam ne suñu borom la. di ñaan yàlla tamit euh, jeunesse bi. Mhm. ñu gëm seen bopp. di ñaan yàlla tamit aussi ñu xam ne nit ñi jàng. Mhm. dala ci esprit d'ouverture rek. Mhm. a ci bureau ñëpp amuñu sens toog ci bureau. tey bu yàlla dimbalee ngay def si nga exercer ci commerce wala nga def beneen métier ba yàlla bënn ci mën ngaa fay ñu jàng kon nag ndaw yi nañu am esprit nañu am esprit d'entrepreneuriat. nañ jéem a xool entrepreneuriat naka lañ ko gën a développé. naka la di créer ay sociétés embryonnaires yu ndaw yoo xam ne nii ñi dañ ciy liggéey parce que boo demee Italie kay daal am naa ne yoo xam ne dañ doon moodu moodu hmm. dañoo ñibbi si ñett ñeent italien booloo ubbi ay usines yu ndaw di liggéey kon il faut ñu dans ce sens là hmm. encore une fois di waa ACIS hmm. di remercier l'ensemble des commerçants Sénégal euh, surtout tam le secteur informel wax na leen tey daal ñun ñoo le moteur du développement xam ne waxtaan bi nag gàtt na am na loo xam lu bëri bëggoon nañ ko wax ci commerce amuñ temps wax ko mhm. mais xam ne yoon yamul si benn yamul si benn mhm. nañ leen sant bu baax yéen waa Rewmi FM aussi leen gërëm mhm. di kontaan ci émission di xam ne ñu rek nous sommes lu ñu bëgg rek bi développé. dëkk bi ak saabu ba tam ñun dëkk bi amul saabu duñu liggéey ñun. jërëjëf ñun la ci la ñuy liggéey. am na solo jërëjëf. di ko sant di ko gërëm mbokk yi di itam sama concert boobu di mati itam. moo jàpp ci émission bi ba mu yem gërëm babaay dara ci sama technique ci technique bi jox leen dig daje ba beneen dimanche ak beneen invité fii ci émission Rewmi FM ci émission gox bi sant leen gërëm leen bu baax a baax jox leen dig daje ba dimanche incha allah bi